bisimilah rahmaani rahim eh, mbokk yi kon waxoon nañ leen li ëpp solo luñ ñu war a yar ak xale mooy ñu yar ko ci wàllu diineem ak tarbiya diiniya wala tarbiya imaaniya wala ñeneen sax ko tudde ak tarbiya beneen ba nag ba ci ëpp solo mooy ak tarbiya aqliya mooy yar nag xelu ñi nga xam ne ñoom ñooy jeunesse bi ñi nga xam ne ñoom ñooy xale yi. ndax kat mbokk yi bépp societé béppum réew bu nga xamante ne shabab ya fa nekk jeunesse ba seeni xel setut boobaa ñooñu moom mënuñoo avancer mënuñoo dem fenn fu ñu toll dañuy arrière rek ak di gën a tardé seeni yeneen i réew ñoo leen di not lépp lu ñuy soxla dañu koy dem jëggaane ji ko wala ñu yalwaane ji ko du caagéen ne ñañ koy ëpp yalwaane ji wala ñu ko fay jëlee ñooñu seen xel yi dafa gën a nag ci suñuy xel wala dañ ñoo gën a muus déedéet mi ngi aju ci rek ku nekk sa xel nañ ko yare ba nga xamante ne yar nañ ko ba ba mën a xalaat xalaatin wu jub xalaatin wu rafet woo xamante ne dina mën a jariñ boppam jariñ eh, eh, société am yëpp nag ci moyens yi nga xamante ne war nañ koo jëfandikoo ngir mën a yar ab eh, xel moomu bi njëkk mooy wiqaayatu wa ximaayatu shab min al afat al aqliya mooy fexe ba xale bi jeune bi ñu fexe ba moytandikuloo ko li nga xam ne mooy gàkk-gàkk yi dal am xel mbokk yi xel léeg-léeg day am ay gàkk-gàkk yu ciy nekk comme ni nga xam ne yére dafay jékki-jékki am gàkk-gàkk ba ñu fóot ko ba mu set mu doo ko dañ noonu la xel itam di am ay gàkk-gàkk yoo xam ne bu ñu ko fóotut du dañ wala boobu bu ñu fexee ba fexewuñ ba moytandik ko ba du àgg ci xel mi boobaa euh, euh, mën naa taqal li nga xam ne moom mooy xel mi loolu nag am na li ñuy tudde afaat xissiya yoo xamante yu ñu mën a gis la ay gàkk-gàkk yoo xam moom euh, yuñ mën a yëg loolu li ci ëpp solo mooy bañ a jëfandikoo loo xamante ne dafay yàqam xel wala day tax ba xel mi lam waroon a def liggéeyam dëggantaan du ko mën a tee def loolu mooy jëfandikoo yu mel ne yi nga xam ne day tax nit ki màndi lu mel ne sàngara lu mel ne drogue lu mel ne yàmba ak lépp lu nga xamante ne rek dafay tax ba xel mi la mu waroon a taxawee wazaayif yam waroon a jóg def ko du ko mënatee def borom bi wa taala wax nañu ne yaa ayuha alladina amanu innama alxamru walmaysiru wal ansaabu wal azlaamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañu ne ci xamru ba léegi ne inna allah azza wa jal laana alxamra wa aasiraha wa muctasiraha wa shaaribaha wa xamilaha walmahmula ilayhi wa baayaha wa mubtaaha wa saaqiyaha wa mustaqiyaha maanaam sàngara lépp lu ci ka koy naan ak lépp luy yëngutu ci wetu sàngara rek ña koy defar ak ña koy distribuer ak euh, ña koy publicité ak ñépp rek borom bi subhanahu wa taala rëbb na leen ndax sàngara dafa nekk loo xamante ne dafay yàq xelum nit te nit ki bu amantul xel mel ne bàyyi ma ndax borom bi subhanahu wa taala fi mu wax ne wa laqad karramna bani aadama wa xamalnaahum fi lbarri walbaxri wa razaqnaahum min altayibat wa faddalnaahum ala kathirin mimman xalaqna tafdilan maanaam gënal nañ doomu aadama ci lu ëpp ci li nga xamante ne bind nañ leen lan la doomu aadama am te ñeneen ñi amu ko amuñu ko ba aat doomu aadama gën leen loolu borom xam-xam yu bari biñ ciy gëstu nee nañ xel moom la doomu aadama am te yeneen mbindeef yi amuñu ko kon doomu euh, manaatu tafdil li tax doomu aadama gën yeneen mbindeef yi moom mooy xelam kon nag doomu aadama noonu la war a sàmmee xelam ba nga xamante ne du tàqali kook moom waaye noonu la fexe sàmm xelam ba nga xam ne li xelam waroon a def du jëfandikoo dara loo xamante ne daf koy yàq te loolu nag bokk na ci eh, jëfandikoo lépp lu nga xamante ne day eh, mandiloo nit ki ndax bu ñu waxee sàngara eh, comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxee wala umar ibn al-Khattab ne alxamru xaamara al aql maanaam sàngara mooy loo xam ne dafa muur sa xel rek lépp lu muur xel rek sàngara la bépp xeetu drop wala yu ñuy jëfandikoo yu nga xamante ne day tàqalikoo nit ki ak sagoom loolu lépp ci xeetu sàngara la loolu lépp Euh, euh, borom bi subhanahu wa taala daf ko aaye te li tax mu aaye ko mooy fexe ba nit ñi sàmm seeni xel te loolu nag euh, xale yi jeunesse bi ñoom ñëw ci gën a yeyoo parce que yu mel nii ci ñoom la gën a tasaaroo ñoom ñooy gën a jëfandikoo loo xam ne daf leen di tàqalikoo ak seen xel te ñoom la xeet bi gën a soxla seeni xel muy nàcci ngir ñu mën a génn xeet bi ci tarde gi nga xam ne moom la nekk ak itam su développement bi nga xam ne moom la ñuy dund moo tax euh, rot na ci xadis bu weer boo xam ne yonent bi sallallahu nee na wala tashrabil xamra fa innahu miftahu kulli shar bul naan sàngara ndax sàngara mooy bunt mooy caabi bépp ay bépp ay nit ki bu xasee ba màndi bu xasee ba tàqali kook sagoom kooku moom lu ne mën na ko def moo tax euh, non seulement daf daf ñuy tardeel waaye itam daf ñuy yàqal insécurité lay am ci dëkk bu fekkente ne nit ñi dañuy jëfandikoo yoo xamante ne daf leen di tàqale ko ak seen sago parce que pare nañ pour rey nit pare nañ pour saaga pare nañ pour def lu ne kon euh, li ëpp solo li ñu war a yar nit ki mooy fexe ba euh, moytuloo ko gàkk-gàkk yooyu nga xamante ne day gàkk-gàkkal euh, xel te wax naa leen loolu afat xissiya la mooy yooyu ma leen tuddal waaye am na afat maanawiya ay gàtt-gàtt yu xamante ne yoom euh, maanaam nekkul luñ mën a gis wala luñ mën a laal waaye nag dafay yàq xel day tëj xel da koy tënk ba nga xamante ne lam waroon a xalaat du ko mën a xalaat mel ne nit ku nga xamante ni dafa gëm ay ay xarfa fuufa maanaam xalaatam yépp ay awham rek moo cay moo moo cay nekk maanaam gëm loo jeunes yi lu mel ne toog di gaafal ay ay nit toog yu bare bari ñu ko ñu koy bañ wala yu mel noonu wala ñu gëm xeetu njabar yu baree bari loolu lépp euh, ay gàkk-gàkk la yoo xam day tax ba xel mi la mu waroon a def du ko war du ko def maanaam nit ki tey tey par exemple euh, bi ñu génn ci bac bi ñu génn maa ngi gis euh, ñuy def ay reportage au lieu ay nit wala préparer bac bi dem muraaja dem réviser seen i leçon ña ngay dem ci ay sëriñ ñu leen di jox ay saafara ak di leen jox ay téere naan la lii boo demee teg ko ci euh, kaw chaise bi ngay toog wala yu mel noonu mais loolu dafay tardiloo ay nit léegi kooku boobaa xelam moom waroon a jëfandikoo pour jàll ca bag ba wala yëg mu jëfandikoo ko gëm na ne ab sëriñ wala ab njabarkat moo ko mën a jàllaloo ca ca ca ca bag boobu loolu nag ay misaal la rek ci yoo bari yoo bari yu nga xam dafay tënk xelu euh, xale yi te ñu war a fexe ba dañ cay mucc moo tax euh, yonent bi sallallahu alayhi wa moom daf daan fexe ba Euh, jéem a tënki xelu nit ñi ci yu mel noonu benn bis euh, ba doomam jooju faatoo Ibrahim euh, dafa tolloo woon ak bis booba jant bi génn jant bi dafa dafa nëbb woon nit ñi tàmbali naan kasafati shamsu li mawti Ibrahim ñu ne daal jant bi daal tey di ko te feeñ mooy Ibrahim mi faatu Ibrahim moom wàllu la فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله mu nekk xadis bu wér boo xam ne Buxaari moo ko solo mu ne leen jant bi ak weer wi du ñu muuru ngir ne diw dafa dee wala diw mi ngi dund seen yoon nag bàyyi leen gëm-gëm yooyu nga xamante ne amul benn njariñ daf leen di tardeel waaw lii ay kéemtaanu yàlla la bu ngeen ko gisee daal dem leen julli ji te ñaan borom bi subhanahu wa taala loolu moo ëpp solo kon loolu fokk ñu tinki nit ñi ba ñu xamante ne yi ñu gëmoon te mu leen di tardeel ñu dindi ko ci ñoom te bokk na ci afaat yooyu mooy taqlidul ama itam ne lii laa fekkoon samay papa nekk ci rek fokk ci laa war a parce que bu ma ci nekkul mooy ne maa ngi tuumaal samay parents ak samay maam ne ñoom la ñu nekkoon baaxul yow du ci sa yoon say say say maam ak say say say baay ñooñu lañu waroon a def def nañ ko ba pare la des seen digganteek seen borom la léegi yow kay jéemal yow li nga xam ne gis nga ne mooy ak njub nga jéem koo topp waaw ñoom lañ defoon borom bi subhanahu wa ñoom kese la ko la koy laaj te mën naa am amoon nañ ngànt loo xamante ne yow amuloo ko xëy na njub gi leer ci yow leeru woon ci ñoom ba tax na maanaam toppandoo bu metti gëmm rek ne la fekkoon rek ci lay nekk loolu aussi dana tardiloo nit moo tax borom bi subhanahu wa taala ne wa ida qila lahum ittabiu ma anzala allah qalu bal nattabiu ma alfayna alayhi abaana aw law kaana abaauhum la yaqiluuna shay'an wala yahtadoon buñ ne leen kaay leen topp njubug yàlla gi kaay leen topp li borom bi subhanahu wa taala lu ñuy wax ñun de dañuy topp lañ fi fekkoon suñuy bàyyi laaj suñ bàyyi ak suñuy maam nekkoon daal dara gënu ko fi ci loolu la ñuy jàpp mu ne awlaw kaana abaahum laa yaqiluun shay'an wala yahtadoon seeni baay yooyu dañoo amul woon xel dañoo gindeekuwul woon yéen nag bu leen yàlla dimbali yéen ba ngeen gindeeku xam li nga xam ne mooy njub gi kon da ko war a euh, kon mbokk yi yar bi nga xam ne mooy yar bu wér li muy njëkk a bokk na ci ay objectif am mooy taxriiru uqulil mutarabbiin min aglaali taqlidil ama al mutawaaris fexe ba libéré xelu xelu ñi ñuy yar ba nga xamante ne toppandoo googu ak jàpp ci li nga lépp lu nga xamante ne rek moo fi nekkoon rek eh, ñuy war cee jàpp loolu aussi dañ dañ leen libéré waaye nekkul ni nag lépp lu fi nekkoon rek itam lu bon la am na ñoo xam ne ni ñuy comprendre mooy ne eh, dañoo war a sànni lépp li nga xam ne moo fi nekkoon rek jàpp ci lu bees li déedéet la ca baaxoon dañ koy jël lu ci bon itam ñu bàyyi ko loolu du caageen dañuy tuumaal ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko ñoo jàppoon ca loolu wala yu mel noonu kon mbokk yi beneen euh, jëmtukaay bi nga xam ne itam dinañ ko euh, jëmt euh, jëfandikoo ngir mën a yar xale yi ci seen weeru wàllu xel mooy ishbaahu xaajaati shabab al maarifiya min al ulum sharciya wa muxtalaf al maarif ilmi fexe nag ba xel dañ ko war a sol dañ ko war a jàngal pour ñu mën koo yar lii tax mu màgg lu tax ñu mën koo suuxat dafa mel ne garab garab boo ko jëmbatoon ba bare doo ko suuxat du màgg xel itam boo ko dut suuxat même bu fekkee amul leneen lu koy yàq itam dafay dee te xam euh, xel nag li koy suuxat mooy xam-xam ba tax na bu ñu bëggee yar xelu euh, xale yi fokk ñu jàngal leen jàngal ba la ca jiitu mooy jàngal leen ulum charia ba nga xamante ne euh, dinañ ca man loo xamante ne dañ leen jariñ seen mbiru àdduna ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ne woon talabul ilm faridatun ala kulli muslim sàkku xam-xam farata la ci bépp jullit bu ñu ko waxee nag sa xam-xam sharia moo ci jiitu waaye yeneen xam-xam yi amal njariñ nit yëpp nit ñi dañ ko war a jàng jullit ñi waruñoo bàyyi benn borom benn xam-xam am njariñ boo xam dañ naan bi waruñu ko jàng ñëpp jëm rek ne ñoom xam-xamu ñëpp war a jàng moom rek mooy xam-xam bi am njariñ déedéet dafa am ñu war a jàng xam-xamu sharia ba xam ko am ñeneen ñu dem jàng yeneen xam-xam yi ba xam ko am na nag li ma ma ko waxee woon ci njëlbeen nga am loo xam ne fardu ayn la ci xam-xamu sharia ku nekk war koo xam ku ne looy jàngi bala nga koo jàngi war ngaa xam loolu ba pare waaye bu ñu xamee loolu ba pare nag waruñoo ñun ñëpp nag féete ci benn boor ne dañuy jàng sharia kon kay jàng leneen lu sharia itam la muy jàng lu baax a baax la lu am am solo la ndax bu fekkente ne jànguñu xam-xam yooyu boobaa dañuy continuer di ñu not di ñu euh, parce que yeneen xam-xam yooyu aajowoo nañ ko suñ dund mënuñu koo ñàkk comme mënuñu koo ñàkk rek dañ koo jullit ñi dañ ko war a jàng ba ba xam ko moo tax euh, imam yi euh, xamante ne xaw naa yàgg ci borom xam-xam yi teewut waxoon na wax bu am solo bu nga xamante ne ni daanaka day wax ak jeunesse su jamono jii ñenn ñi nga xam dañoo gis ne ci ñoom jàng yeneen xam-xam yu dul diine daanaka amul njariñ wala boog dafa xaram mu ne wa kam yaxfa ala alfaqihi walxaakim alxaqa fi almasail alkathira bi sababi aljahli bilxisaab waltib walhandasa fa yanbagi li dawi alhimami alaliya an laa yatruku alitilaa ala alulumi ma amkanahum falam ara fi uyubi nnaasi ayban ka naqsi alqadirina ala altamaami ba fa waxam di jeex nee na bari waa na ab faqih ki jàng ulum sharia am ay masala yoo xamante ne lënt na ci moom mënu koo euh, euh, comprendre te la tax mënu koo comprendre mooy dafa am ay yeneen xam-xam yoo xam du xam-xamu sharia ba noppi def koo réere lu mel ne calcul nee na lu mel ne mathématique wala lu mel ne médecine wala lu mel ne xeetu euh, ingénieur yi ñuy def yëpp yooyu yëpp nit ki daf ko war a jàng pour jéem koo xam moo tax mu ne gisuma ci ay bi nit ñi ay bu ëpp nit ki mën a àgg fenn ba noppi du fa du fa àgg maanaam nit ki fu nga xamante ne ne xelam mën na ko faa àggale ci am njàng dafa war a lu ba àgg foofu warul ne lii fii tubaab yi rek ñoo fi mën a àgg tubaab yi rek ñoo mën a inventé ngi kay dañuy consommer rek waaye mënuñoo inventé déedéet dañu war a yar suñ jeunesse bi ñu gëm ne ñoom itam fépp fu euh, euh, technologie àgg fépp fu xam-xam àgg mën nañ fa àgg ñetti ci jàng ulum sharia yi ñu gëm ne fépp fu ulama yu mag yi àgg war nañ faa mën a àgg ndax xel mi eh, ñoom ñëpp am nañ ko kon yooyu mooy yu ëpp solo ci li ñuy def pour mën a yar eh, xel eh, ngir tënk rek dañuy ñëw ci beneen aspect bu am solo ci wàllu yar te mooy yar ay jikko loolu itam jeunesse bi soxla nañ ko lool lool lool te suñu société yi li ñuy gën a jànkuwanteel fi ne nii mooy jikko yu yàqu te jikko bu xasee ba yàqu moom itim dafay laal secteur yépp kenn mënta am développement te fekk na nit ña nga xamante ne ñoo war a développer dëkk ba seeni jikko baaxut parce que du caageen ne ay matériel ak alal ju bari moo ñuy développer la waaye nit ci boppam al insaan moom moom moo yore développement moom moo koy euh, idaara bu fekkee nit kooku nag amul jikko yu rafet kooku fo fo société booba du mën a dem fenn moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa waxoon na ne innama bu'istu li utammima salihal axlaq dañu maa yónni ngir ma li jikko yu rafet yi loolu day wane place bi nga xamante ni jikko am na ko solo ci biir euh, lislaam euh, waaye itam am na ko solo ci biir yar yarkat yëpp li ñuy gën a yittewoo mooy nan la fexe ba jubbanti jikko ña ñuy yar ba ñu jaar ci yoon wi nga xamante ne mooy yoon wu wu jub ndax kat bépp societé boo xamante ne seen i jikko baaxut mbonte dafa tasaaroo boobaa jikko euh, société booba fa muy mujje rek mooy toroxtaange moom mooy euh, alko moom mooy euh, topp ay nit a leen di not yilif leen di leen def loo nu leen nu leen neex borom bi subhanahu nee nañu woon wa ida aradna an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha fa fasaqu fiha fa xaqa alayha alqawl fa dammarnaha tadmira nee na bu fekkente ne eh, dañoo bëgg a alak ab eh, dëkk nañuy def rek mooy digal ña nga xam ne ñooy nësar ya ya yàqkat ya balkat yaag musicien yaag artiste yaag yooyu rek ñoom ñooñu rek ñooy ñooy nekk ci kaw ñoom rek la ñuy yëkkati jàpp ne ñooñu rek ñoom ñooy ñooy ñooy ñooy ñi am daraja nee na bu boobaa nag moom eh, alak leen rek la ñuy def mbokk yi kon Euh, war nañoo xam yan moyen ak yan euh, jumtukaay lañuy jëfandikoo ngir mën a euh, am li nga xamante ne mooy yarub jikko bi ci njëkk mooy takwinul waayil axlaaqi lada shabab maanaam conscientiser jeunes yi ba nga xamee ci wàllu jikko xamal leen ko jàngal leen ko lan mooy jikko yu baax ak lan mooy jikko yu yu yu yu bon nan la ñuy ràññatlee jikko yu baax yi ak nan la ñuy ràññatlee jikko yu bon yi ak itam xamal leen ngëneel yi nekk ci jikko yu baax yi pour ñu def ko ñu xam itam euh, ñaawteef yi nekk ci jikko yu bon yi ngir ñu bàyyi tax yonent bi sallallahu alayhi wa na ci liggéeyam bi gënoon a rëy mooy ak tazkiya kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum maanaam daf leen doon sellal sellal bi mooy fexe ba dind ci ñoom jikko yi nga xamante ne baaxut def ci li nga xamante ne moom mooy euh, jikko yu yu baax kon mbokk yi lii ëpp solo lu ñu war a euh, yare jeunes yi te mooy état bu ci jëkk mooy ñu fexe ba euh, xamal leen jàngal leen li nga xamante ne moom mooy ay jikko ndax kat nit ki bu xamee jikko yu baax yi mooy tax mu jëm ca bu xamee jikko yu bon yi itam mooy tax mu bàyyi ko waaye nit mën nay def am jikko yu ñaaw sax fekk na xamut ne lii dafa dafa ay ndax li muy gis chaque fois ci média yi mooy dañuy dem bay rafetal lu bon ba mel ne lu baax day mujj mel ne fenn loolu lu baax la ndax li aj ëpp ci li mu koy dégg ak di ko gis ci ay nit ñu nga xamante ne ñii ay référence lañ ci ci ci moom day dem ba jàpp ne corruption dara nekkatu ci parce que ci kaw tali bi fu mu romb gis nit ñaa ngi corrompre ay nit fu mu dugg fokk mu corrompre ay nit pour mën am dara day dem ba gis ne jàpp ne ah moom kat corruption dara nekkatu ci man ngaa man euh, jéem mën nga ko def moyen pour am xaalis wala nga def ko moyen pour jéem a lijjanti say mbir loolu moo tax nag fu ñu toll pour ñu mën a yaraat euh, jeunes yi war nañ leen di jàngal li nga xamante ne mooy jikko yu baax yi jàngal leen li nga xamante ne moom mooy jikko yu bon yi kon loolu mooy étape bu njëkk bi étape bi ci topp mooy ci wasila yi ñuy jëfandikoo mooy targhibu shaab wa iqnaahu bi sumuwi ak axlaaq al islaamia wa darura wa darurati taxalli biha mooy jeune bi nag euh, du doy rek mu xam ne jikko bii baax na jikko bii bon na waaye fokk ñu jéem koo euh, euh, convaincre jéem koo xembeem loo li nga xamante ne mooy jikko yu baax wan ne ko jikko yi nga xam ne moom la lislaam indi mooy jikko yi nga xam nit ki bu ko jikko woo ci lay yëkkati ko ba nga xam ne dina sori euh, bàyyi ma ci la itam dundam di mën a neexee bu société boo xamante ne itam jikko yooyu jël nañ ko société la boo xamante ne dafay dem te kenn du leen mën a téye waaye contraire ba bu amee mooy bu ñu fi bàyyee jikkoy lislaam yi bu boobaa euh, moom dañuy gën di dellu ginnaaw rek moo tax kon euh, jaadu na ñuy xamal euh, xale yi fu ñu toll ngëneel yi nga xamante ne rot na ci jikko yi lislaam jàngale te yonte bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci lu baree bari wax na ne inna al mumina la yudriku bi xusni xuluqihi darajata saim wal qaayim jullit ci jikkoom yu rafet mën naa àgg ci darajay ki nga xam ne dafay julli ak di taxaw euh, dafay woor ak di taxaw guddi loolu kon day xemmemloo jeune bi ci mu jéem a jikkoo jikkoy rafet waxaat na itam ne ma min shay ma min cheyin yudaau fi lmisan asqalu min xusni alxuluq wa inna saaxiba xusni alxuluq la yablugu bihi darajata saaxibi sawmi wa salaa amul dara lu ñuy teg ci balance yowmal qiyaam lu gën a diis ay jikko yu rafet loolu bu ñu xemmemloo jeune bi ci loolu dina tax mu jéem a euh, rafetal ay jikkoom yonent bi sallallahu alayhi wasallam la itam ginnaaw bi ñu ko laajee maa xayru ma utiya al abd qaala xuluqun xasan lan moo gën ci loo xamante ne nii danañ ko jox nit du alal de du daraja de du ay manasib ay ay ay post poste yu muy occupé waaye mooy mu am jikko yu rafet mbokk yi kon loolu bu fekkee xemmem téef boobu am na day tax jeune bi buy def jikko yooyu bu koy jéem a jikkowoo day yëg bànneex ci biir bakkanam te bànneex boobu loolu rek mooy tax mu mën a jëm ci euh, euh, jikko yu baax yi naka noonu itam day dem ba buy def lu nga xamante ni jikko ju bon la day yëg naqaru xol te naqaru xol googu mooy tax muy sori li nga xamante ne moom mooy jikko yu bon yi moo tax euh, Ibn Hazm wax na ci téereem boobu di as-siyar wal axlaq muy téere bu am solo ne laysa laysa bayna al-fadaa'il wa ar-radaa'il wala bayna at-taa'aati wal ma'aasi illa nifaaru nafsi wa unsuha faqat maanaam lii lii li lii dox diggante yu baax yeeg yu bon yi wala topp yàlla yeeg mooy yàlla yi li ci liy dox seen diggante rek mooy maanaam bakkan bi jublu ko wala mu bañ ko moo tax kon yarkat bi li muy yittewoo mooy fexe ba bëgguloo ki muy yar jikko yu rafet yi fexe ba bañ loo ko jikko yu bon yi nga xam ne bu ko gisee wala mu dégg nit def ko rek xolam day metti ci xolam waaye buñ ko ko miinalee ba nga xam ne dana dem ba jikko yu bon yooyu day mel na bon euh, aadi maanaam loolu lu mën a nekk la loolu bu boobaa mën na ca tàbbi moom moom ñetteel ba ci eh, ni ñuy def itam ci moyens yi nga xam dina dimbali ngir ñu yar Euh, shabab yi jeunesse bi ci euh, ay jikkoy rafet mooy takwinu al irada sadiqa lada shab lada shab liktisaabil axlaaq maanaam fexe ba jeune bi nag ginnaaw bi nga xamante ne xam na jikko yu baax yi xam na jikko yu bon yi xàmmee na leen ginnaaw bi nga xamante ne convaincre nañ ko ba xamal ba ba euh, bëgg nag dugg ci def jëf jikko yu baax yi bàyyi jikko yu bon yi des nag beneen mbir mooy ñu fexe nag ba yar ko ci mu am volonté nag dogu dem defi li nga xamante ne mooy jikko yu baax yi bàyyi li nga xam ne mooy tere yu euh, bon parce que kat mbokk yi bari waa ku nga xamante ne xam na ne lii baaxut bëgg ko waaye bakkanam nott na ko ba nga xamante ne yaruñu ko ci euh, takwin euh, iraadam ba nga xamante ne dana mën a am ak dogu nag jékki-jékki rek dem jëm ci la nga xam ne mooy lu baax bàyyi li nga xamante ne moom mooy lu bon moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan soññee chaque fois ci ñu yar nit ki ci mu mën a maîtriser boppam ba nga xamante ne du bakkanam moom moo koy jiital waaye moom mooy jiital bakkanam di ko xëcc moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ci xadis ne laysa shadidu bi bi suraa wa innama innama shadidu alladi yamliku nafsahu inda algadab nee na mer eh, eh, doole du mooy du fërëx fërëxi rek fu ñu la kee nga mer saaga jóg nara a nar a xeex waaye mooy ki nga xamante ne bu meree mën a maîtriser boppam mën a téye boppam loolu nag lu am am solo nit ki yar ci boppam fexe bay maîtriser boppam mën a téye boppam am na ku ñëwoon itam laaj ko ne ko dénk ma mu ne ko laa tax daf bul mer ndax daf koy aaye mu bañ a mer mer ajuwut ci nit mer mbir la bu nga xamante ne eh, maanaam dafa nekk ci doomu aadama ji buy mer du moo koy tay waaye li ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam digal mooy boo meree fexeel ba maîtriser sa bopp ba nga xamante ne mer ma du moo lay puus ba nga def loo war te def loolu mooy li ëpp solo loolu nag nit ki mën na ko te bu ci yaree boppam jéem ci góorgóorlu kem kàttanam boobaa boroom bi subhanahu wa taala mën na ko ci euh, jàppale beneen moyen ba aussi mbokk yi mooy takwin al xiss al xuluqi la def shabab maanaam fexe ba nit ki nag am yëg-yëg ci wàllu jikko te loolu mooy ñu fexe ba dundal damiram ku nekk dafa am conscience bu nekk ci yow bu nga xamante ne nii bu ñu la jàngalu dara itam boo bu lu bon ñëwee da nga yëg ni lii vraiment bon na même boo koy def bu lu baax ñëwee itam da nga yëg ni lii lu baax la waaye damir jooju nag léeg-léeg nit ki bu baree lu muy def lu bon day mujj ba damir ba dafay dee maanaam ba nga xamante ne nii buy defati yu mel noonu mën naa bañ am benn yëg-yëg léegi nag lii roolu yarkat bi mooy mu fexe ba xale bi dundal ci moom damiir boobu wala waasin boobu nga xamante ne mooy conscience am nga xamante ne mbir mii bu egsee xolam euh, du ko may mu def ko bu fekkente ne lu bon la euh, bu fekkente ne lu baax la itam xolam daf koy puus ci mu def ko loolu nag lu am solo la loo xamante ne nit ki war na ko yittewoo yonent bi sallallahu alayhi wax na ci xadis ne al birru ma sakanat ilayhi nafs watma inna ma anna ilayhi al qalb wal ismu ma lam taskun ilayhi nafs walam ma walam yatma'inna ilayhi alqalb wa in aftaaka almuftun maanaam ku nekk ci ñun am na damir boo xamante ne mën nga cee xàmmee li baax ak li bon am na bu fekkente ne damir boobu mi ngi dund bi lu baax ñëwee dana ko nangu accepté ko mu dugg waaye bu fekkente ne lu bon dafa ñëw def koy rejeté bañ koo loolu nag bu fekkente ne nit ki damiram mi ngi dund ci la koy mën a amee waaye bu fekkente ne damir ba dafa dee boobaa loolu moom du ko du ko mën a tee def mbokk yi bi ci mujj wala boog bi mujj ci bu ci bi avant dernière bi mooy tadribul mutarabbi aw aw shab ala mumarasati al fadail al xuluqiya mooy nag fexe ba xale bi wala jeune bi ñu di ko entraîner ci muy jéem a pratiquer li nga xam ne muy jikko yu rafet yooyu maanaam du doy rek ñu jàngal ko ko ba mu xam ko ba mu bëgg ko ba mu convaincre ko waaye nañ koy fexe ba di ko teg ci ay situation yu nga xamante ne loolu mu jàngoon dana ci entraîné wu di ko euh, di ko jéem a pratiquer ndax kat ay jikko nit ki bu ko dul pratiquer jikko yow du mën a sax ci moom jikko boo bëgg mu sax ci yow bu baax foog nga di ko pratiquer di ci entraîné bu baax a baax ndax yonent bi sallallahu alayhi wa moo ne woon innama al ilmu bi taallum wal xilmu bi taxallum wa man yataxarra alxayra yuta wa man yatawaqa charra yuuqa aw yuwaqa comme ni nga xamante ne noonu la ko Bayhaqi euh, euh, solo te imam Albani wéral na xadis boobu maanaam xam nee na da koy jàng boo jàngut doo xam du toog naan nañ la sol loolu du tax nga am xam waaye itam nee na lewet da lewet lewet lu ba lewet lewet jikko ju baax la mais pour nga lawet foog ngay jéem a lawet lewet lu ba lawet boo bëggee dëggu itam foog ngay dëggu dëggu lu ba dëgg waaw boo bëggee am njàmbaar itam foog ngay jéem a jàmbaar jàmbaar lu ba amul njàmbaar kon ay jikko lu ñuy jàng la lu ñuy entraîné wu la nit ki comme ni muy entraîné yaramam ba mu dëgër noonu la war a entraîné wu boppam ci ay jikko yu baax di jéem di jéem fu mu toll waaye bu toogee jéemul rek boobaa jikko yooyu du ñëw ndax yonent bi sansa wax na ci beneen xadis ne man yastafif yuifahu llah wa man yastagni yugnihi llah wa man yatasabar yusabiruhu llah maanaam képp ko nga xam ne yaa ngi jéem a téey sa bopp borom bi dañ la jàppale ba nga mën a fekk sa bopp mën a abstenir ba doo tàbbi ci loo xamante ne lu xaram la waaye na fekk ne yaa nga doon jéem képp koo xam ne yaa ngi jéem a doylu di wut lu nga xamante ne dana la euh, koomal borom bi subhanahu wa taala dañ la jàppale ba nga am la nga xam ne moom nga bëgg képp koo xam ne yaa ngi jéem di mi du muñ borom bi subhanahu wa taala dañ la dimbali ba nga mën a muñ li nga xamante ne sa kattan àggu ca kon lépp loolu lépp li muy eh, tegtale mooy ne nit ki dafa war a jàng ay jikko jéem ci entraîné boppam ba man ko bi ci mujj mbokk yi nag mooy tanshiatu shab ala shuur bil masuliya al xuluqiya tijaha al umma waaye ñu yar nag xale bi ba nga xamante ne dafa yëg responsabilité bu mu am ci jikkoy xeet bi maanaam ne moom yàqute gi nekk société bi moom daf ci am responsabilité te daf ci am lu mu ci war a daf cee war a jóg bay ci waaram warut a toog rek naan jikkoy yàqu na fi ne réew mi yépp a tas ñépp a bon déedéet dafa war a jéem moom kem kàttanam tàmbale ko ci boppam jéem a jub moom jéem a tàmbale ci ñu ko gën a jege jéem leen a jubbanti lu mu mën a jàngale ci société bi nag ba nit ñi jub mu def ko te lam cay tàmbalee la ci ëpp solo moom moom mooy mu nekk moom exemple bu nga xamante ne nit ñi dañuy xool ci moom surtout bu fekkente ne dafay góorgóorlu ci diine dafa jàng diine nga xamante dañ koy teg bët di ko xool moo xam yëg na ko moo xam yëgu ko léeg-léeg ñun ñëpp dañuy am euh, laamu baala duñu duñu du ñu am yëg-yëg ne nit ñi ñi ngi ñuy xool te fekk na ñu bëree bëri ñu ngi la teg bët bëri na mbir boo xamante ne yow boo ko defee rek xalaas ñu bëree bari ne ah li mbir mi de kon ndeket dara néew ci te fekk ne nit ñi gaa daanañ ko def lu bari waaye dañu jàppoon ne lii moom wax dëgg yàlla ñun dañoo am kàccoor di ko def rek waaye baaxul waaye bis bu ñu gisee ne diw sàngam def na ko te fekk ne diw sàngam moom moom la muy wane ci bitti mooy ne nitug diine la eh, xam-xamu sharia la jàng booba loolu dina yàq lu bëree bari ci nit ñi moo tax la ëpp solo itam nag mooy nit ki di jàngale au lieu muy ci làmmiñam nay jàngalee ci ay jikkoom na xam ne nit ñi ñu ngi koy xool na nekk royteef bu rafet ndax bu nekkee royteef bu rafet kat lépp lu nit gis ci moom lu baax ba roy ko ca boobaa ab yool la rek buñ koy defal moom moomu kon loolu mënta ñàkk ndax mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wax nañu bu fekkente ne société bi ku nekk da ngaa sa côté rek ne man sama yoon nekkul ci li fii xew boobaa bu société ba di sombre ñëppay àndandoo labandoog moom du yow ma nga xam ne yaa nga woon ca sa lu baax nekk sa benn coin rek làqatu fa ne man daal damay def sama lu baax waaye yoon nit ñi moom sama yoon nekkut ci ñoom boobaa bis bi société ba di e, e, yàqule wala ñuy lab boobaa da nga ànd ak ñoom lab comme ni nga xamante ne Nu'man ibn nu euh, radiyallahu anhu nettali na ne jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne masalul qaa'imi ala hududillah wal waaqi'i fiha ka masali qawmin istahamu ala safina فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ki nga xamante ne moo taxaw ci diggu yàlla yi di def li ko borom bi subhanahu wa taala sant ak ki nga xamante ne moom moo nekk di ko eh, nekk di moy di jéggi dig yi nga xamante ne moom la borom bi subhanahu wa taala dig teg nee na dafa mel ne boo leen doon joxe misaal ay nit ñu nga xamante ne dañoo eh, yéegoon ci benn gaal gaal gi gaal gi nag ñaari niveau la niveau ci suuf ak niveau ci kaw ñu daal di bantale seen bopp ne ñan ñooy nekk ci kaw ñu ñu ñu féete ni ñooy nekk ci kaw ñu féete ni ñooy nekk suuf almuhim ñu nekk ci gaal gi ñi nekk ci suuf bu ñu soxlaa ci ndoxu géej gi dañuy yéeg ba ci kaw tànq doog a wàccaat ci suuf ñu jékki-jékki ne waaw ñun daal pour ñuy bañ a gêner suñ mbokk yi ci kaw chaque fois ñu yéeg a a wàcc tee ñu rek bënn ci gaal gi bën bën bu nga xamante ne léegi fi la ñuy jëlee ndox au lieu ñu yéegat ci kaw nee na yonent bi sallallahu nee na ñi nekk ci kaw bu ñu toogee di leen seetaan ne ñun suñu yoon nekku ci ñoom ñoom suuf gi ñoom ñoo ko yittewoo bu ndox mi duggee ñu ñoom lay laal nee na ba ñu bënn gaal ga bu ndox mi ñëwee ñoom ñëpp ay labandoo ñoom ña nekk ci kaw duñ mucc de waaye bu fekkee ña nekk ci kaw dégg nañ loolu ñëw téye seen loxo ne leen bu leen fi bënn gaal gi ndax bu ngeen ko bëndee ñun ñëpp ay labandoo bañ bàyyi ko boobaa ñun ñoom ñëpp ay mucc bokk yi naka noonu itam société bi noonu la mel bu ñu toogee di seetaan mbon gi nga xamante ne moo fi nekk bu mu musiba ñëwee du yam ca ña nga xam ne ñoo doon def Euh, mbon nga waaye ñëpp lay matale loolu moo tax euh, li euh, caractériser maanaam société boo xam ne société islamique la mooy dañuy digle lu baax di tere lu bon ku nekk du ne du ne bopp sa bopp rek waaw waaye ku nekk da ngay jéem jubbanti la nga xam ne moo jubut defar la nga xamante ne moom moo baaxut loolu nag ñi ci war a jiitu mooy xale yi waaye nag ñu ànd ca ak xikma jàng ba nga xamante ne dangay comprendre bunt boobu nan lañ koy defee ndax am amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar bu fekkente ne amoo fiq ba dégg ko na nga ko war a déggee boobaa man ngaa dem di digle lu bon ak di tere lu baax te loolu xam nga musiba la war a war a war a digle lu baax tere lu bon yow ngay digle lu bon di tere lu baax ndax boobu da ngaa amul fiq ba dégg ba nga xam ne moo waroon nga moo waroon dégg ci bunt boobu kon xale yi war nañoo jéem a dégg bunt boobu jéem cee jéem koo tasaare ci société bi ndax borom bi subhanahu wa def suñu société bi mu nekk société boo xamante ne dafay tegu ci yoon wu jub bi nga xam ne mooy siratul mustaqim yan nañu ko borom bi subhanahu wa may loolu may ñu ay jikko yu rafet yar ñu yarub lislaam bu nga xamante ne nii eh, dina dinañ mën a yaru na nga xamante ne noonu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam yare woon ay saxaabaam salaf yi yare ko ña nga xamante ne ñoom lañ doon yar mu nekk jiil bu nga xamante ne jiil bu set la ndax loolu rek génération bu bu nga xamante ne dañuy set ci seen xel set seen i pas-pas set seen yaram loolu rek moom moo mën a eh, avancé loo ab société waaye Euh, société boo xam ne dafa am jeunesse malsaine comme na ko euh, kooka waxee woon boobaa société boobu mënta avancé te nag suñu société yii nga xamante ne dañoo yar xale yi yar bu nga xam ne yar wët wëtt nag yaru diine ñaare wër euh, set ga nga xam ne moom la ñu waroon set ngir mën a développer réew mi amut ci ñoom loolu nag dafay tax suñu responsabilité day gën a màgg ñun ñi nga xamante ne ñoo jàng diine ñun ñi nga xam ne ñooy jéem a góorgóorlu ci jéem a xam li nga xam ne mooy sunna si yonent bi sallallahu alayhi dañ ko war a tasaare ba nit ñi yor jikko yooyu nga xam ne mooy jikko lislaam yi kon mbokk yi loolu rek lañ doon fàttali ko teg ci gàttal euh, lu ci matut ngeen ngeen euh, mottali ko euh, wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbi kon mbokk yi yàlla nañ ci yàlla subhaanahu wa taala jëriñ mu des ne kon dinañu jox nit ñi lu mot juróomi bi ñu taxaw jéem a organiser waat chaise yi comme dañoo jëm ci benn atelier mooy workshop amal boo xam ne seen participation yéen lay doon kon dañ koy fexe ñun ñi fi nekk mbooloo bi ñu xaaj ñeenti groupe lu mu néew néew ñeenti groupe yi ñu fexe chaise yi jàkkaarloo bu ñu dellusee dans cinq minutes wala dix dinañu wax mawdoo bi ak participation bi nga xam ne moom la ñuy séntu ci groupe bu nekk incha allah kon ba ci kanam